ak sëriñ Mamor transitaire ak sëriñ Jiili Mbakke abo sëriñ Abdou Khadir mii sëriñ abo dañu ko demal àndeek sa baay sëriñ Moussa Abdoul Akram ànd naag rakkam Sohaybu ak Cheikh Mamoun jarbaatam ak sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Abdoul Wadood ak sëriñ Muntaxa moom sëriñ Moustapha Abdoul Akram ak sëriñ Baara moom sëriñ Abdoul Akram ak sëriñ Maam Sëriñ moom sëriñ Abdoul ak mboole njabootuk soxna Anta Ndiaye amuñu safay ñoo ànd daaru salaam ak kër sëñ Afe cofoo bis lu war ci yëgle ak bokk def nga ko te caatu maam Cheikh Anta kër sëñ Abdou Aziz la nekk ba bayi ko fa sëriñ Bas ku ne xam na ni taawub maam Cheikh Anta di sëriñ Modou Mamoun ak sëriñ Baara ñoom la sëriñ Touba boole woon lépp yàlla yàlla guddal soo fan sa bis li ci defaru ci ak bokk bari na lool li ci juddoo bari na lool li ci defaru bari na kon euh, kii dafa defoon ay bayit di doomi sëñ aafe moom sëriñ abdul wadoot da koy jàng mu gàtt lim bi nag yaa wax ni nañ ko wax wa ama bi ni'mati rabbika fa hadis daaru salaam ak kër sëriñ aafe jox nañ sëriñ basiru 4 millions xeeb ko lool njabootu daaru salaam la ko dale ca kër sëriñ moodu maamun ba ci sëriñ abdu góora la ko dale ca kër sëriñ moodu farmata ba ci sëriñ moustapha afia ak seen njaboot gu jigéen ci teewaayu Serigne Moustapha Abdoul Akram ak ci njiital Serigne Moustapha Abdoul Akram ci taxawaayu Serigne Mbacke Anta moom alaaj sëñ Tàkko ñëw nañu indi 4 millions jëppal la ko xam ni li def ci bis bi wutoo ci bénéfice ndax communication bi rek ëpp na 40 millions yaa mën a wooteel sëriñ Bara yaay asgor yaay ab jullit yaa jadale l'islam 4 millions yaa ngi noonu Serigne Khadim Lo gay del borom Thiès agsi na peex kii day jàng bayit yi rek nga dugg ci sëñ Abo soxna May. Serigne Abdoul Khadir dëngeej baa ngoog bi mu toogee ci kër Serigne Modou Mamoun yokku na lépp wàññiwul dara sëñ Moussa Abdoul Akram nee na yaboo jikkoo ma tax ma ànd moom man na maa yilif man na maa yónni ndax lan mooy sama mag waaye jikko nag laa moom kon jërëjëf. waaw sëñ Yaboo dafa wax ni njaboot gii rek la am ne fu ngeen toog sëñ Yaboo du ñëw de sëñ Yaboo jiili mi ngi gërëm sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoulaye Karam gis na sëriñ Moustapha baax na ci bokk mu seex sëriñ Moustapha Abdoulaye Karam ku mën a defaru bokk la ku mën ñaw la ku bëgg sëñ Aboo la man nag sëñ Aboo damaa amul ci moom sago sëñ Aboo li ma nijaayam sëñ Abdou Khadir defal ku dul yàlla mënoo moo tax ma topp ni ndeyam moo tax nag sëñ Aboo nii mi ngi sant njabootu Daaru Salaam cant koo kat yaa ngi ci biir sa baay ak sa maam dañoo àndoon ak maam Cheikh waaye tey sa ñaboo nee ni Daaru Salaam yembe rek mi jiitu ko bu tëddee mën naa nelaw mi ngi leen di ñaanal yàlla guddal seen fan te may leen wér. ñu jox kii mu ko ci trois minutes rek ñu déglu Serigne Moussa Abdoul Akram après. bismillahi rahmaani rahim. ma xëy te buur jëliwaat xalim gi tey wanewaat. cofeel gi tey yee salaat ak cant moo ñu waraat njabootu seex antaa ngi nii njabootu siñ aafee ngi nii maga ki ndaw ñépp a ngi nii am mbégtekat lañ wanewaat aafee ki seex ñoom benn lañ seen kër ya kat ñooy bokk añ njaboot gi it ñoom benn lañ seen xol ya kat lañ benn laat lii moo waral ñoom ànd nañ ñoom ñépp ngi tey réere wuñ ñoom ñoo juboo ba mel ne bëñ seen bis bi tey daa wanewaat siñ bas de tey yaa yeesalaat lamaam yi ji nga suuxataat rafetlu nañ sa biib xalaat mbokk gi tey nga dundalaat wa ahsinu ga yàlla wax siñ bas de yow ci lii nga sax sa lépp weex amoo lu rax yaa def lu rëy ñoo la nawaat sun ruu yi tey yaa ko teral sun xol yi tey yaa ko seral sun xol yi tey de yaa ko seral siñ bas de yow nee naa bégal murit gi tey ñépp a bégaat ñii nga hommage daa wanewaat l'islam ju rëy nga dundalaat bennoo gu sax nga dekkelaat sëñ bas sa kem dootu amaat sëñ bas wëyal sa yoon ta dem yoon wi nga aw ku aw ca dem ku teggi ko doo masa dem ku lay bañit amul xalaat ci barke Cheikh Anta Boroom gaawaani ak Daaru Salaam na yàlla buur may la ngërëb loo yéene rek mu sottalaat ci barke maam sun xaafiya yàlla nga am yow xaafiya tawat gu ñëw nga saafiya say jëf du diig day rogalaat ci barke Mbàkke Anta Mañaan xéewal xéewal yu law diirub samaan ref refet nga xol amoo ki ñaan lii rekk a tax say mbir dinaat ci barke sox na Anta Sali may doomi doomi Anta ngërëm lu sax tool na tëli yi ne ci réew mi nañ la joxaat suñ bas xamal suñ bas xamal doo des ginnaaw kanam nga jëm doo masa ñaaw waxoo lu bon defoo lu ñaaw ku ñëw di sóor na laajtewaat ak cant rek lañ ma waxoon ma def ko man ma def ko man lañ ma waxoon ci ay minute lañ tënke woon minute yi jeex ma delluwaat. léegi la ñëpp toog ñu déglu général taxawaayu Serigne Abdourahmane Fall ci laa la sëriñ Abdou Aziz ci laa la jërëjëf sa taxawaay rafet na. waa Serigne Bassirou Serigne Batal Mbacke caatum Serigne Ibrahima Ndar mi ngay sant di la gërëm ci sa taxawaay Serigne Babacar mu kabbaroo taxawaayam rafet na soxna soxna Diarra Fall mi nekkoon ci délégation soxna Khady bi ak soxna Fat Bintou Cissé ak soxna Astou Mbaye soxna Layla Silla maam Diarra Silla soxna Loo Mbaye Ami Saw soxna Anta Xuma soxna Loota Amar soxna Khoudia Fall maam Assane Fall Cuba Babu soxna Aji Babu soxna Aminata Loo Mbaye Aysatu Dramé soxna Khady Silla soxna Fatou Bousso Mbaye soxna Njorta Mbaye soxna Ndey Njaay Mbaye ak Mamy Lo ak Mamy Lo ak soxna Ndeye Mbène Lo ak soxna Maymuna Mbaye maam bu so Saaxo maam bu Silla soxna Daba Cissé ñoom ñëpp ànd nañu soxna Xadi waaw ne mi ngi sant Serigne Khadim Lo Gaydel mi Serigne Touba jox yëfi boppam borom ndaam borom baxdaat di sama xarit di sama soppe di sant alaaji xaadim Gueye moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Falilou mu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Mbacké Falilou ak soxnaam Adja Soda Badiane ñu jëli généralu Serigne Touba Serigne Moustapha Lakaram nag dafa mel ni Serigne Moustapha mi ngi woote Muntaxa jegeel Serigne bi ba xam lu mu wax délégation soxna Daba. Mbacke moom Serigne maam Cheikh Mbacke accident ñu koy sant bu baax ànd naag mbokkam yëpp Serigne Atou Diagne dañ ko ci rendu hommage maam Abdou Mbacke moom Serigne Galas Mané imam Cheikh Awa Balla Gueye ak Serigne Sam ñu ngi leen nuyu Serigne Abdou Khafor ànd naag rakki boppam Soxna Faati Sidi Soxna Faati Khafor soxna Soxna Mbacke moom Serigne Khadim Awa Ba jiite njaboot gépp Soxna Faati Khafor sëriñ Bass dañ ko yéegal fii ci kaw di sama rak di sama xarit soxna Faati Baye Fallou baayam Baye Fallou sëriñ Abdoul Khafour soxna Ami Diop soxna Sabara waxoon nañ ko léegi kon ñu jël ci général suñu noppee sëriñ Moussa Abdoul Akram soxna Baali Muntaxa ñu ngi lay sant Pape Sarr. Cheikh moom Silla sëriñ baa ngi koy sant di ko gërëm ci ay teraangaam Cheikh Mbaye CMC trading sëriñ baa koy sant. Nasiru Samb ñëw na fi démb di doomi sëriñ bi xaritam def fi teraanga yu bari piyax waaw euh, sëriñ bi nee na Nasiru Sekk tamit doon muxaddamu Seex Ibrahima nag mi ngi koy sant sëñ Mouhamed Samb soldaaru sëñ Touba nee na koy sant Serigne euh, Seexuna Saaxo marabu VIP bi mi ngi koy sant ne soxna Mominatu Kebe moom Alaaji Njuga Kebe Serigne baa ngi koy sant nee na mi ngi sant baax Adja lii ba moom it ne ñu déglu sénéralu xaadim rasool waaye seex ñu ngi gërëm Farba Ngom Farba Ngom député assemblée nationale moom itam ñu koy gërëm taxawaayam ak i ndaw yi ñëw na fi jili jili ñang jili ñang jili jili tey la la ma la wax tey jiiri sëñ Bamba am na ndam jiiri xuloo ak daan bi ñu leen tëkkalee dañoo mattandoowul jiiri général taxaw na jiiri ki gëm sëñ Bamba taxaw na jiiri ki yaakaar sëñ Bamba taxaw na waaye jiiri sunu mbokk dafa def lu baax muy Farba Ngom député assemblée nationale Farba Ngom jëfam tey ci kër gi ku ne gis na ko bu sa mbokk lu baax wax ko Farba nagam yi bari na camion nag la fi farman moom yónnee bisimilah ñu déglu Serigne Moustapha Abdoul Akram moom soxna Awa Balla Matar Samba mi bokk ak borom Daaru Muxti seen ñaari nday bëtum réew Serigne Moustapha am Serigne Abdoul Akram moom Afe Afe Anta ak Mbacke Anta ak Cheikh Anta ak Fati Anta Anta Salikan Ibrahima oo ñeeg sëñ Mbacke Maram ci laa la jërëjëf sa maam la Serigne Touba waxoon kaay ñuy jaamu yàlla